benn question gis nañ euh, président dem ba euh, loolu. ñun liñ ciy wax mooy naqarlu ko d'abord peut-être moom am na agenda boo xamante ni moo koy wax pour Kër Massar peut-être démographiquement moo ëpp Cambérène mën na nekk loolu mais itam ñun ay citoyen lañ ci réew mi la ñu bokk. te am na loo xamante ni wax naa la ko ci tàmbali ga la Cambérène dafa am lu mu lebal état du Sénégal la communauté en général donc loolu waroon na mën a tax moom ci kóllëre gi mu am ak kër gi ci kóllëre gi mu am ak Serigne Ablaye mu ne njaboot gi njabootuk Serigne Ablaye la ndax ñun li ñu jàpp mooy bu doon beneen këru diine du ko ni nii du ko ginaawal nii mënoon na génn bi mu génnee palais présidentiel ñëw ba Padoa mënoon na jël góos dem yoof jaale masaw jël corniche wàcc Cambérène du ko wàññi dara da koy yokk rek parce que liñ ko mere woon loolu yëpp day tax mu gën a jeex ndax nit soo ko meree faalewu la bu tourné wax ak yow oh, te nga xam ne kilifa la yàllaa ko fa teg te ñun sénégal yëpp ci moom la ñu aajoo loolu ñun dañ ciy sant yàlla mais bu fekkente ni daf nu tëb dem ba foofu ñu yaakaar buy retourné dina fi jaar jaaraatu fi jigée fi demaat Kaolack def ay tournéem boolewuñ ci loolu bu nu nee neex na nu itam dañuy dañuy wax lu nu neex rek loolu ku toog ci baas bi neexu la monsieur le maire mi xam naa ni mënu ko wax mais man maa koy waxal loolu neexunu monsieur le président de la république li ñu bëgg mooy nga gën a considérer Cambérène la communauté en général bàyyi nu xel ba nga xamante ni lépp lu askan wi di am ñun dag ñu ciy boole. parce que je profite de rebondir ci loolu tey xoolal sur le plan du sport 1965 la ñu am association sportive muy AS Cambérène stade bii nii 3 hectares 500 la dans les années 80 la ñu ko amoon mais tey defar nañu stade Cambérène eh, astaghfirullah defar nañu stade Parcelles. defar nañu stade Guédiawaye defar nañu stade Pikine defar nañu stade Yoff defar nañu stade Ngor mais ñun ñoo leen ëpp superficie ñoo ñëpp te defaral nañu suñu stade bëgg nañu xam problème bi lan na ñëw defar ko ñun waxuñu ay techniciens ñëw nañ fi waxtaan ak ñun waxuñu ay ingénieurs ñëw nañ fii waxtaan ak ñun xamu nañu bëgg ay action ñëw di matériels yi teg ko sur ñu xam ne lii dañ koy defar ñu ñëw def pose première pierre bi ñu ànd ak yow suñu marché bi màgget na boobu léegi ñu ngi koy wax Cambérène bu ñu fi doon toog di wax mooy duñ fi jóge président dañ lay tàllalaat loxo encore une fois nga dimbali Cambérène. waaw moom laa la ceex sàng ne la ñun suñuy autorité dañu am yar ñoom dañu dal ñoom dañu teey ñoom am na yoo xamante ni mënuñu ko parce que ñoom yaru mag ñi yaru mag ñi lañu am xam nga yaru mag ñi boo ko amee. bàyyi laay baax na ci ngay dox parce que tey mag ñi bi ñuy joxe tool yi bu doon tey la da nga yaakaar Libaas Kan amuñu buñ fa amul tool sax ñun du ma nangu ñu suule ko noonu <laughs> dina am loo xamante ni si ni ay ndàmpaay la yoo xamante ni yu considérant pour ñu mën a def loolu parce que ñañ koy jox ci askan wi la ñu bokk te ñun tey Cambérène ñaari activité la ñu amoon te lépp état bi da ko yàq activité yooyu xam nga lan la mooy tool yi suñu papa ay tool ci la yore sama mag Seydou maa ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko dolli leeram taas nu ci barkeem am yaakaar ci moom itam ndax moom dañu daan ndax man libaas xaalisu tool yi moo ma daan fayal jàng ba ma doon li ma doon donc ñun loolu exemple la si ñun kon tool yooyu noonu bu ñu ko sëkkee waroon nañ am lu ñu fi dak mais defuñu fi dara ñu ngi jublu géej gi ñu dugalal ñu tuyoo bi mu dàq jën yi donc Cambérène dafa am ay problème yoo xamante ni mooy li ma la wax kilifa yi fi nekk nag ñoom du ñu jóg di wax parce que ñoom pare wuñu pour def loolu ndax yar bi ñu am la ñun nag dañu ñëw fekk fi ñun génération 2000 lan technologie bi moo moo moo fi ne ñu ngi liir li xew ci réew mi ñu ngi xam liy dox ci àddina bi ñun ci loolu la doxee